sëñ Abdou Khader. gi nga xam ne ci la sëñ Abdou di teeru ak sëñ Sam Mbacke Ndoulo mooy néew gan ñaa ngi nii ci ngan gi ci kër sëñ bi ci résidence Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Aliou Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Moustapha xalifa général Daaru Xuddoos moo ñëw ci ngan gi fii ci kër Cheikhul Khadim yal na taxawaayam yàgg yàgg ci gannaawam ci barke Sëñ Tuuba jërëjëf Mbacke sëñ Mahmadan Mbacke xalifa sëñ ma Samba ak sëñ Moussa Mbacke doom rakkam ak sëñ Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Faty Khary Mbacke jërëjëf Mbacke Bac Aliou ibnu Cheikh al Khadim jërëjëf Mbacke borom buur ak njàpp ndal ibnu Cheikh al Khadim jërëjëf Mbacke taxawaay yàgg ba la is jërëjëf Cheikh Sali ibnu Cheikhul Khadim jërëjëf Mbacke taxawaay bi yàgg ba la is Mbacke jërëjëf ba la is am sa taxawaay yàgg Mbacke. Mbacke ibnu Alaaji Fallu Mbacke moo nekk nii jërëjëf Mbacke ànd ak sëñ Mouhamadou Mamoun Niang ki Fallu Mbacke. ki mooy sëñ Jiili ibnu alhaaji Mouhamadul Fadal mbakki mooy xalifa sëñ lu mbakki yal na yàlla yàggal ab taxawaayam ci kanam njaboot gi mu ngi ànd ak alhaaji Baara Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal mbakki mooy rakkam ak sëriñ Ibrahima waaw sëriñ Ibrahima Mbacke ibnu sëñ Abo mbakki ibnu alhaaji Fallu Mbacke alhamdulilah kooku waaw sëñ abo waaw alaaji abdu xaadir jiili mbàkki moom sëñ falu mbàkki mu ngi noonu du toog ci wetu magam sëñ moodu buso mbàkki waaw sëñ moodu xabbaan mbàkki ibnu alxaaji muhammadul fadal waaw waa kër alaaji fàllu mbàkki dongo yu mag yi ak alaaji murtala mbàkki moom sëñ fàllu moo nekk nii taalibe bu nangula ci kër gi momi tamit di sunu wëllëri waaw jëre gën jëf mbàkki borom yagal ko sunu kanam bu and ak wër dañu yag topp ci gannaaw mu yàggu nu jité sa borom def jamm ak salaam ak xewul yéene ci Abdou Khadir lepp yalla na ko yàlla yàggale ci dara yi seen Tuubaa mbacki lepp lu yéene ci yoon yalla yàlla ko yàlla may wér fanu gudd wàllu sa faaw ci dara yi seen Tuubaa mi xay mo ngi day Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf kàddu yi tedd yooyu ngeen deg alhaji baram mbàkke ibnu alhaji fallu mbàkke moko ci jor jokli fi moy keur cheikhul khadim keur gu maggi seigne sëñ mbàkke soxna loo woote bi nga xamni ni seigne abdou khadir xaadir ibnu cheikhul khadim mo am gan gu mu fonk muy abdou diouf président de la république seigne abdou Khadir wote ne nañ ko ko teerule si waa daaru xuddos nak ñepp ñew nañu sëñ Mbàkke soxna lo mi nga xamni ne la fa mi ngi ni tok ak mbokki taalibe yëpp sëriñ señ Modou Kara Nooré ni ngi ni soxna lo ño bok non nek non di nuyoo wa mbolam wa bokki daaru Xuddoos kenn desut waa daru Musti ñom ñëpp ñew nañ ko ki taxaw di nuyoo moy señ Modou Kara waaw. Modou Mbacke ibnu Cheikh Ousmane Mbacke ibnu borom mo tok ni ci kan ngan go xam dañ koy tertu président Abdou Diouf fi ci keur Serigne Touba gi mom ngeen jakar lol ni ibnu Serigne Basir ibnu Serigne Touba ki ci kim dendal moy Serigne salih mom Serigne nour Moustapha Mbacké te nekkoon ambassadeur mom ngeen janor li ñoy waxtan ni Serigne salih mom Serigne Modou Moustapha Mbacké Serigne Moustapha Basir am na sëriñ Basiru Mbàkke ci teeru bi ni teeru président Abdou Diouf kii ngeen gis Abdou Hakim di rek ci sëriñ Moussa Basiru sëriñ Abdou Hakim moo nekk ni ñi ñëpp ci ak sëriñ Tuubaa yi sëriñ Mourou Mahfoud ak sëriñ Moustapha Abdou Khadir Mbàkke taxaw ñu waaye léegi nag. sëriñ Mourou Bousso Dieng. sëriñ Abdou Sis ñoo nekk nii. sëriñ Mourou Bousso Mbacke. borom na xam mu Baye Fall yi di ebootuk maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Amdi Yaasin Fall a ngi ni ak sëriñ Cheikh Khady Gueye sëriñ Modou Aminata Fall moo nekk ni toog sang su baax si kër rakkam sëriñ Modou suñu Amdi Fall hmm, sëñ Modou Aminata Fall sëñ sëñ Amdi Fall Khady sëñ Assis Fall Jëmb Fall Eh, ak sëñ Cheikh liggéey Amdi Yacine Fall Amdi Yacine Fall ak Cheikh Ndiaye menuisier ak sëñ Assane Fall moom sëñ sëñ Moustapha Fall jërëjëf ñooñu mooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Saliou Mbacké moom Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Touba ñëw fii ci kër Serigne gi ngir teeru président bi Diouf Serigne Saliou Mbacké moom ngeen gis noonu ñaan Serigne Touba walla yàggal leen fi teew ci bis bi sëñ Abdoulahat Mbacké moo ko